placé sous mandat de dépôt ndax Ousmane sonk dina bokk élection 2024 jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal Seydina Ousmane boroom naaru góor jëmm ji nga xamante ni laataal lépp di xew mook Sonko la woon bi coow li baree mook Sonko la woon bi lii lépp xewee mook Sonko la Seydina Ousmane mi ngeen gis muy rëdd lii muy rëdd di bind lii muy bind muy lu yéeme loo xamante ni tey la koy nangoo génne ci émission lii muy bind yaakaar naa ñi ko yàgg topp xam nañ ni bu ko génnee rek sës na arm la waaye leneen ak leneen la ci biir te dina leer ci biir émission bi ndax tey secret yëpp la ñuy génne ndax Ousmane Sonko fee mu ne Seydina Ousmane yàgg naa wax ni na Sénégalais yi génn Seydina Ousmane Ndiaye boroom naaru góor ba mag sàll génnee ne troisième mandat du ko déposé dañ fi ñëw mu ne ñu ndëgg sërëx la ndax li muy wàcc ci kanam lii la yegsi nañ ci tey nag gis nañ lim ñu doon wax waaye nag dañoo ñëwaat ngir mu wax ñu Ousmane Sonko fu mu nar a jëm ak ñun. Ousmane sonkon ndax dina bokk élection 2024 waaye taxawaayu askan wi ci loolu tey dinañ waxtaan ci njariñ dinañ waxtaan ci xam-xam ndax li mu de li mu dëxëñ moom Seydina Ousmane bari na loolu naaru góor dama ko jël exemple ci yi nga xamante ni génn na ko ci ay produit am waaye li muy def ci faj aajo li muy def ci faj feebaru nit ki waaye li def ci ñaan yàlla yéem na sénégalais yi ba Seydina Ousmane bu waxee rek ñëpp dañ naan gongo waaye bu waxee ñëpp dañuy xam ne njariñ génn na waaye tamit boroom xam-xam saalum dëgg wax na Seydina Ousmane tey dinañu waxtaan ak moom ci actualité lu xóot xóot ndax tey révélation yi nar naa gën a yéeme tey donte que heure bu ñu ko jëlee mu wax ñu lu ñu yéem ci Sénégal balaa boobu dañ koy bàyyi moom na Ousmane Ndiaye mu nuyu mbokki internet yi nga xam ñoo koy seetaan sëriñ bi bismillah aouzu billahi min asheytan irajim bismillahi arrahmani irahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala afdali xalqillah muhammad ibni abdillah rasulillah اللهم إني أسألك إياك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير بل إني إليك فقير فكل ما أنزلته فله انتهاء يبقى بعده الفقر رب إني إليك فقير فما يكفي الفضل عن العفو ولا العفو عن المغفرة ولا المغفرة عن الإحسان والكرم الجم الذي لا انقطاع له أبدا فكل ما سواك لا يغني عنك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا خير الراسخين وصلي وسلم على سيدنا محمد waqbalna waqbil ilayna bi wajhika wa adim alayna sitraka wa aafiyataka wa atayaka ya zal jalali wal ikram wassalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbooleem aalamul di nuyu mbooleem mbindeef ci monde boo mën a nekk di leen dalal si seen kër bismillah yéen waa Allô jërëjëf bu ngeen gisee nuyoo bi xam ni am na lu muy wàcc te émission bi tey nar naa yéeme seen Ousmane lii lépp danga nga ko waxoon laataa muy ñëw ñi ngi nag wax seen Ousmane daa am lu mu àndal ay jinne ay rawxaan leneen ak leneen loo xam ne ñoo koy may seet gi nga xam ne mi ngi koy def lu mu seet gis ko Seydina Ousmane ci seet gi loo seet gis ko ku la seetloo nga wax ko loo xamante ni buy génn fii mun naa ni sax dafay tuur ay waa waaw damay wax ne nit ku nekk rek dafa am mission bu muy doxal bu ko tax ñëw fii suuf si si kaw suuf depuis ci maam yi rawoon ci maam maamaat yi ci bàyyi ba tey mu ass si ñun mission bi la ñuy dawal rek dafay jeex après ñu ñu dem ñeneen ñoo mottali ko kon mënoo làqatoo làqatu wala nga ñàkk wax dëgg ba tere heure bi nga war a dee nga dee ko su fekkee dafa am say jaar-jaar ci àddina mënoo làqatu ñàkk wax ba tax ñu ba tax ñu ñàkk la say jaarale yu bëri nag mu ngi xew nit ñi ñu ngi toog rek di seetaan jàpp ne seen yoon nekku ci bis bu wàccee sa ëtt su boobaa nga xam na sa yoon nekk na ci si sëriñ ci autorité yi businessman yi bitigéey yeeg ñëpp a ci yem jaaykat yi caafe yeeg ñëpp ci yem gis nga doomu soble wala pompiteer bu yàqu ci saako génneel sànni rek waaye boo ko génnewul rek dina mujj yàq yëpp foofu lañ toll nag amma ay affaire yu jinne wala dara doomu aadama moo gën a foor loolu donte yàlla nag ni mu lay mayee ay taalibe nit noonu la lay mayee taalibe jinne rawaxaan ak xuddaam ak yeneen mbindeef waaye ñooñu maa leen gën a foor du ma toog di leen ndamoo mm-hmm. kon koo toog dégg mu naan am na ay nangami jinne ak nangami nii rek day wax lu ko neex rek waaye bu xamoon dëgg dëgg dëggam moom mooy kan du ndamoo jinne di bàyyi boppam mm-hmm. dañ la ko jox mu mu lay liggéeyal moom moo la war a ndamoo wala yaa ko war a ndamoo moom moo la war a ndamoo kon soo albatikoo di ko ndamoo da nga xamul ismullahi azam daal ñu ngi sal sant yàlla yàlla xamal nañu ko beneen ba mooy ñu ngi sant yàlla kurus duñ ko sàgganee te bañ ko téyee dafa yàgg kanaa luñ waxut wala luñ bëggut ñu bari xam ko waaye lu ñu ëmp moom si jamono jii ak luy xew loolu yàlla dimbalee nañu ci amut waaye nag du wut ne lépp nga war a wax yàlla bi mu rañaanee yonentu bi ñett xam-xam yi mu ko joxoon benn bi ñëpp dañ koo war a xam beneen bi moom kooku mooy sharia beneen bi mooy elmul asrar ñii dañ koy xam ñii dañ ko xam beneen bi mooy elmul qadri yonentu bi la ko yàlla jegleel waru koo wax keneen waaye nag al ulama warasatul anbiya borom xam-xam yi ñoo donn yonentu yi boo doonnoo ki nga doon nag il faut que da jël ci lim amee woon donte lu néew la lu néew loola nag da lu loo day daal di bëri ci yow waa day daal di bëri ci yow loolu daal yàlla mu ngi ciy dimbale ñi ñu xam ñoo xam nañ du ñooy toogati di wax ci wàllu cher wala nanga waaye képp koo xam ne seetal nañ la da nga yuuxu danga wax ne maam li nga ma wax musuma koo gis loolu li ma koy dégg mënatuma ko mënatu dafay booy samay nopp wala li nga ma wax nii su fekkoon ne dama laa dama laa xam wala ma xam koo xamante ne damay wax ne dañ ma jaay waaye loolu yàlla dimbale nañu ko nit dafay ñëw balaa kii mën a ko ubbilal diw te kooku duggagul sax ci bunt bi wala ni ootee ma ne ko mboq loo xam ne daal mosu koo mënu koo dindi bu fekkee ay def-def la ay liggéey ma wax ko kañ la ak fan la ak kan la ak naka la ak ban heure la yooyu yëpp mu xam ko mu leer nañ ñi ñu toj liggéey yi samp ko taal ko nit ñëpp di ko dégg loolu yàlla dimbali nañ si alhamdulilah. waaye da nga am loo tudd léegi ci lay ci lay rebondir muy ubbi nit ki taal ko def ko li nga koy def ndax ñi la xam dëgg xamee nañ la ubbi nit. ubbeeku am na sax yoo xamante ni yaa ngi ko daan faral di wax ñi nga xamante ni mënuñoo yegsi ci sa jëmm ji ngir buñ bëggee ubbeeku mel ni ubbeeku ñor na la te ubbeeku tamit yor nga ci yoo xamante ni ku ko laal du bokk ak ki ubbi ki ko dimbale na ma ba mbir yi nga xam ne man dama koy joxe retour yi ma ci am kontaan naa si torop ndax dañ lay wone la sëñ bi lii ak lii de dama dégg nga wax ko ma xam ne yow ak ni ma la gisee doo joxe lu ñuy lu ñuy wàññi wala doo joxe loo xamante ni day loor ma def ko maa ngi ñë maa ngi woon ci état nangam instant bi maa ngi ci état nangam sëriñ bi maa ngi lay gërëm dinaa la ñëw seet si am na si ñoo xam ne indi nañ la ay teraanga nga nit ñi ñooy toog fii di kii ñun ñu ngi sant yàlla ñun ñun ñaan yàlla defal nañu lu nekk bu dee kër la ñaan yàlla defal nañu ko bu dee oto la dangay toog toog gis ku génnee ab oto ba nangam retente lay jàpp da ngay xam ne kii mu ngi doog am oto nga xam ne yow bi ngay dawal oto boobu boobu kenn xamul kañ la kon kooku ku doye di wala kuy rek mu yaa koy def lépp loo xam ne daal mbiri àddina la wala mbiri zahir mbiri baatin ak lu mënta doon rek kooku yàlla defal nañu ko defal ñoo xamante ni nekkuñu woon ci dara ñu jàppale leen bañ egg fu ñu jëm ñu defal la teranga bu nekk kooku moo ëpp solo ngay wax ni ki fay ma lii wala fay ma un million wala dara bu demee après du andiwaat keneen wala nangam nangam da ngay téye sa course nga liggéey kooku gis mu neex ko mu naqadi ko dalay boolee keneen parce que dañuy gis kum jege mu am problème kon daal li may wax foofu mooy wàllu wàllu taal nekk wàllu samp nekk dafa nekk mbir moo xam ne mbir mu am doole la te mënul ñàkk waaye nag tey damay wax ci li nga xamante ne yàgg naa ko tudd mooy asmaawul bahta képp koo xamante ne da bëgg ubbeeku walla yow kaaraange nga bëgg bind ko defal naa leen foofu si table bi pour mu leer dangay bind boo xoolee da nga ko gis da ngay bind kaslaon yaalasun fa kalamun chekkaalun jamoom maklanun kalaw bu nekk miil nga koy bind lu bari nag dañ leen di nëbbu gis nga juróom-ñaar la moo tolloog juróom-ñaari fan yi si yi nga xamante ni moom mooy moo nekk ci semaine bi benn bu ci nekk mille bu ci nekk ci benn jour nga koy nga koy bind dimanche nag nga koy commencé soo mënee am dimanche bu njëkk ci weeru olof nga def ko bis bu paree nga sangoo ko wallaay da nga gis lu la yéem ci wàllu wërsëg fekkee ne pour wërsëg la reenu doogóob doogoot ak xob yi nga koy booleeg su fekkee ne pour kaaraange la ak toj liggéey ak dindi ay cat ak su boobaa da nga koy booleeg xay waaye nag boo xoolee ci côté wi am na ay mbir yu ko feelu yoo xamante ni liggéey nañ ko nga xam ne ci période bii rek lañ ko dee liggéey nga xam ne dafay ànd ak 129 xay yu bokkut. mooy lii di nduróog xaatim. waaw nga xam ne ku ñu fekk fu ñu koy liggéeyee kii fi ne nii maanaam ni mel ni mel. kenn kenn kenn mënul toog sax di ko wax moo tax am na si yoo xam ne sax du ma ko si jéem ndax am na yoo xam ne kenn waru ko wax waaye dama la bëgg xamal rek ne la mag ñi boo déggee ku mosoon a sangu seen xamb yi takk mbir yii la woon yii la mag ñi daan def ci xamb yi yii lañ daan def ci xamb yi te liggéey nañ ko nag dafay ànd ak 129 xëy ak lañ ko mooñee ak lañ ko liggéey ak heure yañ ko liggéey xaatim yu ñu rëdd ko dammut mu leer naññi gis nga mm. buñ paree ba kooj ko ak damuy ànd ak ñu def ko bu laajee sarax ñu def ko tëju zikaral la kurus nit dëgëreewoo ko sa mbir tareewoo ko ba doo ubbeeku ba fekkoon ay million nga bëgg milliardaire ngay nekk nag man nit du taxaw wax loo xamante ni dama ko wax mu dañ déedéet yàlla dimbale na ma ji parce que waxuma sama bànneexu bàkkan te jàngi jotee ba mu jotee damaa demoon jàngi nit tappale na ba am ay million tappale ba ay kër waaye tappale na ba am xam doo ko gis mukk moom ngay jàng daj lu nekk téye kurus yàlla may la ci lay wax waaye na ba am xam-xam doo ko gi si su ko defee nag li may wax mooy jamono dafa rëb dafa jaxasoo te xeex yi bëri na mu ngi jugee côté bu nekk su fekkee da nga bëgg maanaam képp koo xamante ni daf lay liggéey wala daf lay xeex wala sax daf laa añaanee mu dee si changé wala nga taxaw ci bàmmeelam léegi maanaam képp koo xamante ni yow def nga ko maanaam képp koo xam daf laa noonoo day dee comme ay weñ ni muy dee bëri na si ñoo xamante ni commencement bi songoon nañ songo yu am doole hmm? ñi nga xam ne yàlla xaw na leen dimbale tuuti ñoo ñu reculé nañ mais ñeneen ñi nga xamante ni ñoom dañoo ñëwee woon doole ñun suul nañ leen ba fàtte leen hmm? tooguñ toog rek toog fii li ñu sampu dafa foor hmm. te caaxaane wuñ tur yàlla te ku ñu xam da xam ne yenn yi nekkuñ ci yàlla nag boo ko joxee sa lépp rek mu jox la lennam te lennam loolu daf lay ëpp loolu lañu yàlla dimbalee da ngay jël asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastaxlifakum fi l ardi fa yandura kayfa taamaluuna 41 boo jullee timis balaa nga julli géeye nga koy def amul amul dara wér doo rek nga xool day ñi mel ni ku jëfoor bu fekkoon da dëkk kenn mu lay liggéey day mel ni ku jëfoor yépp day weeru liggéey day sulleeku kenn mënu ci dara 41 fois nga koy liggéey benn bés. ci non da koy danga koy taxoo rek di ko di ko liggéey saa boo jullee timis rek. nga liggéey ko diggante boobu boo demee ba mu yàgg day nekk loo xamante ni day day nekk si sa biir sa biir deret si sa biir deret boo xoolee kilifa yi seen doom yu mujj yi ñooy gën a maanaam même bu ñu defu dara seen mbir day baax parce que booba dafa fekk wilaya gi ñëw maqaam yi ñëw cër mhm. kooku boo si juddoo rek loolu laal ma mais boo xoolee seen doom yu njëkk yi en général danay baax mais a jafe parce que boobu fekk na wilaya gi yëpp ñoragul mais nag doom dafa fekk ñu ñor dañuy am bayra dañuy rafet dañuy am taar dañ ku leen gis da leen bëgg dañuy am wërsëg lu ñu laal dafay bënn mooy caat yi ko may li leen ko may mooy bi ñuy judd dafa fekk booba lem mat lool nag ñun ñu ngi sant yàlla bu baax baax ci côté boobu ak li nga xam ne góorgóorlu nañ ba yàlla dimbali nañ ñu liggéeyal ko suñu bopp ba téye ko laa ilaha illa yaakaar naa ku xam Seydina Ousmane lii du la bett ci moom ndax boroom xam la li wax na ko léegi bi jàngi jotee dafa jàngi bi am xam jotee am na xam waaye bi jariñ jotee mi ngi toog di jariñ ñépp ñoo xamante ni aaji woon nañ ndimbalam sëriñ bi buñ jugee ci ñaan yàlla bu buñ jugee ci ismilal adam yi ñu jugee ci xaatim yeeg yëpp dañuy ñëw ci faj ndax cabinet Seydina Ousmane nekk nekkatul cabinet bu ñuy présenté ci réew mi ay produit génn na réew mi dem ay laboratoire dikkaat ñu saytu ko ba produit yi moo tax boo ci laal dangay yaakaar ni sax pharmacie nga ko jëlee sëñ bi dama ci tànn benn muy naaru góor bi nga xamante ni fu mu yegg turam moo fa yegg boppam waaye fu mu yegg jamono ji résultat ak satisfaction moo fa yegg jëm moo fa yeggi turam dafa am ku ma oo fan yi fekk dafa ñëw ci guddi gi ma jox ko dafa jugee Europe mhm. waaye benn xaritam ma jox ko naaru góor bi fa waroon a jël jabaram waaye xam na na waa famille boobu maa ngi leen di jégalu ndax ndax la la xew doy na waar hmm? li ma la mën a xamal daal mooy gis nga bi ma wooyee dane ma sëñ bi hmm. ma ne ko waaw maa ngi foon lu ne lay wax mu ne ma sëñ bi ñëpp war a sànni seen seen garabu kàttan yi garabu kàttan yëpp la ñu war a sànni ba mu des sa bos mu ni ma nangami fois la la la yóbbu ndaw si ndaw yóbbu ndaw si guddi gi fi ni ndaw si ba fi ni nii timis jot na dañ koy jàppoo bu bëggee dóom si toilette bi sax dañ koy jàppoo naaru góor moo fa jaar képp koo xamante ni feebaru néew kàttan nga amee ak bu mu ci mëntu doon nga ñëw ñu jox la garab gi waxuma la waxuma la boo tenee de boo wérut nga ñëw ñu delloo sa xaalis loolu leer na képp koo xamante ni lu ko mën a waral nag daf koy faj ba mu wér amal quatre-vingts ans wala toogal dix ans yoo xam ne juglewoo wala nekkoo góor amal 80 ans naka suukar waral naka lu mën maanaam daf lay delloowaat sax xale boobu moo ci gën a dee maanaam daf lay def noo xam ne si sa wàllu kattan si sa wàllu sawartaane si boo lekkee mu gaaw a rees mën a récupérer nelaw dangay ngay commencé waat gis boo tuutoon da ngay gis da ngay commencé am yaram di taq di lekk normal muy rees muy dindi raxas sa deret di dindi bépp feebar boo xam ne feebaru biir la ay hémorroïdes ak ndoxu siti yooyu yëpp daf koy dindi mm-hmm. liggéeyu naaru góor la la bu set ñu liggéeyee ko fii ñëpp xam fi ñu koy liggéeyee ni muy jaar ak yëpp dem na ba fi ne nii dañ cee génnee yoo xamante ni comme saaru comprimé lay nekk ginnaaw buñ ko mooñee ndax buñ ko mooñaan ba defar sunguf si gi ba pare jaxase koog lem togg ko dafay ndox nga xam ne da nga xelli kudd boobu ba léegi mu ngi am waaye liggéey day développé defar liggéey nañ ko ba nga xamante ni léegi da ay doom la comme saaru per dangay ngay jël rek daal di naan ndax mm. ginnaaw boo ko jëlee ñu mooñ ko defar ko ba pare lem bi nga ciy def su boobaa du bëri buñ paree daay dafa am fuñ koy móol ak machine bu ñu koy dugal su ko defee moo koy génnee ak dagg-dagg yu ndaw danga koy kii moo koy woowal defal lépp su ko defee yow doom bi rek ngay jël seex nga naan ndox da koy naan léegi léegi léegi léegi balaa cinq minutes kër gi xumb te bu fekkoon ne yorewoo baat bi léegi tey ñëpp danañ la respecté ndax kàttan gi nga xamante ne yaa ngi ko yore te loolu moom kër gu manqué doo mën a élivaate wala da nga bëgg wax dara wala nga ne andil ma ndox sax doo ko ñemee wax ndax da wax nga wax ko ñu wax la ñu wax la sa ay wala ñu nettali la sa guddig démb ah naaru góor nekkatul produit bu ñuy présenté ndax réew mi xam nañu ko gin ginnaaw ba génn na ci réew mi sax def effet feneen ñëwaat ci réew mi réew mi xam naaru góor dootuñu leen ko présenté te du sama làmmiñ bu gàtt wi sax yaakaar naa mooy tax ngeen xam naaru góor ñi ko mos daal xam nañ ni naaru góor mi ngi fa mu ne woon ba léegi sëriñ bi ci lañuy jàll ndax dafa am loo waxoon xel yëpp demaat ci keroog bi ñu jàppee Ousmane Sonko bi mag Sall génnee ne déposé wul troisième mandat da ni ku banqoon bu mu benqi ndax xeex baa ngi doog a tàmbali fi ñu jëmale mbir mi am noo ko waxee woon ba xel yi bi nga xamante ni jàpp nañu Ousmane Sonko lii la woon lii leen doon xalaat sëñ bi lan moo taxoon nga wax loo gis nga boo xamee taarix histoire àddina mm-hmm. xam taarixul lislaam xam nit ñu mos a baax ñi ak nit ñu mos a bon yi dara du la bett ci luy xew nii beneen bi mooy mm-hmm. nelawuñ te te ñu ngi bàyyi xel lépp ñu ngi koy topp étape par étape damay wax ne lii xew ci réew mii képp koo xamante ni daf laay bett sifro Seydina Ousmane amul luñ ciy sàkku amul luñ ci am waaye dañ koy wax ngir yàlla te yàlla tax muy mission boo xamante ni amee nañ ko yéen a amee seeni xel gis nga jamono ji nit ñaa ngi naan ay 2024 2000 nangam ak nangam ak nangam li war dëgg ak ci ñim war buñ ko defee wut noonu hmm. waxuma la 2024 de waaye viam yépp dina ci yàqoo moom Sonko li war dëgg buñ ko deful moom Sonko viam yëpp dina yàqu waxuma la 2024 de waaye viam yépp dina yàqu te ci biir koso yi la yàqoo lii moom maa ko wax hmm? amul ku ma ko gën a bëgg waaye nag dëgg danga koy wax dama leen waxoon keroog ba xewee gars yi jàpp ne mbir yi jeex na ma ne leen ku bankoon bul benki dafa am stratégie boo xamante ni nit booy xeex ak booy booy moom mu dem nga dem ba xam ne tey fi ni ni jekku na la ngay wane ne yow bàyyi nga wala nangam bu demee ba tal leen wala nangam nangam rek nga gaaw sonko du deful loolu lañ ko bëgg def fi ne nii lépp waxoon naa leen ko sëriñ si amuñ dara loolu kurus génne leen tur yàlla yi ngeen liggéey amuñ dara lu dul alquran na gaa yi dóor anal xaw ma yi ba ma ko waxee ñu am luy yëngal nam demeewul gis nañ ko nañ ci delluwaat nañ de nañ delloo bu ngi si mboy mboy ga rek amuñ benn pouvoir mënuñoo jëli kenn dem di ko tëj wala nangam nangam waaye suñu kurus gi lépp lu ñu ci bëgg def def ko léegi tey sa bopp bi di bëgg métti di bëgg toj feeb garab boo naan du sedd te si àlli wa yi lañ koy def na ko mbi na ko sëriñ si génne léegi tey nga seere doo mën a dem si toilette bi sa biir bi di niwi fi ñu toog lañ koy def bu fekkee ne dañ leen yàlla dañ leen jox pouvoir tëjee ko tijji jàpp ku leen neex nangam nangam ngeen waroon koy jëmale ci lu baax defu leen ñu jëmale ko ci beneen côté mhm. ñun tamit am na pouvoir bu ñu jox nañ ci dellu bu fekkee ku nekk rek da ngay wane la la yàlla jox yàlla jox nañ ñi alxuraan dafa wax mu ne nan ngay def ba xam ne yow ki la jiite wala ki nga xamante ni gouvernement bi nga nekk wala environnement bi ngay dund réew mi ngay dox mi ngi mi ngi jëm yoon wala jëmul yoon ndax ñun ñu baax lañ wala ñu baaxul lañ ndax li ñuy doxal noonu la war a demee wala warul demee mu tënk ko ci ñett point suratul baqara aaya 27 alladina yanquduuna ahda allahi min bi misaaqi mooy koo xam ne lu mu wax ak yow digla ko ne la soo ma falee dinaa def lii ak lii lii bis bu faloo affaire yi baax rek mu fàtte ko loolu am na wala amut damay laaj deuxième point wa yaqta'uuna maa amara allahu bihi an yusala lépp loo xam ne yàlla daf leen koo digal ñu war koo doxalee na war a doxee si diggante ay situation ñi war a faju faju ñi war a wér wér ñi war a tukki tukki ñi war a bay ñépp gis si seen bopp ñu war ko yeggale fii jëlee jëlee ko fii nii yeggale ko fale nañ xool ndax léegi biñ ko jëlee fiñ ko jëlee woon ndax yeggale nañ ko fa waroon a yegg wala muy deuxième point wa yufsiduuna fi l ardi mooy troisième point waaye foo gisee ñoo xamante ni dañuy yàq rek si suuf rek xamal ne ñooña ulaayka humul xaasiroon ndax ñu ngi yàq suuf yàq suuf am nga zircon am nga lu ne ci suuf am nga or am nga lu ne ndax ñu ngi koy jëriñoo wala jëriñoo wuñ ko kooku mooy yàq waaye nag alquran daf la waxoon ba tey ne la ñi nga xamante ni dañuy yàq si suuf inna al muluka ida daqalu qaryatan afsaduha ñun ay buur lañ am waaye amewuñ président mu ne nooy def ba xam ne kii ki la amee président la wala buur la buur de nii lay mel ñu ne ko nan mu ne buur mooy koo xamante nii waxtu wu ñëwee ci dëkk képp koo xamante ni da ngaa amoon dara am dignité nekk koo xam ne ku tekki nga di liggéey nangam nangam dalay def ba yow nga torox dootuñ la mën a dootoo mën a tee jàll ñu lay bu dee ay presse nga amee ñu lay tëjëkk tijji di la indil ay problème ba sa sa euh, kii daanu wala yu mel noonu deuxième ba mu ne ñoo xam ne tekki ñu woon dara wala sàmm rek lañ doon def wala leneen donte sàmm lu baax la yonentu bi dafa sàmm ñoo xam ñoo xam ne amuñu woon dara mu def leen ay milliardaire loolu am na Sénégal wala amu fi mm-hmm. wa jaaloo aizzata ahliha azillatan a kadalika yafaaluun alquran mooy wax na nit ñi delluwaat ci alquran lépp wax nañu ko dañ koo lijjantiwul yàlla ne lii ak lii ak lii mooy régler seen addina mooy régler seen àllaaxira mooy tax ngeen am alal mooy tax ngeen tabax mooy tax ngeen am njaboot mooy tax ngeen nangam nga nangam yàlla nit ñi ne ko yàlla yow yaa teg sa stratégie bi teg say problème ak nangam nga nangam tëluñ ko yalla ne leen lu ngeen ci góobee ngeen gar ko man lii am awma bisi awma ci benn intérêt comme lii laa leen digal ulaay wa man lam yakum bi ma anzalallah fa ulaayikum al kafirun fa ulaayikum al zalimun fa ulaayikum al fasiqun yëpp ñu jël ko teg ko fële di def lu leen neex te ñoom ñu ne ànd nañ ci mais sëñ bi Ousmane Sonko bi ñu koy jàpp dafa tombeek vendredi tombeek premier jour biñ tam biñ tam xaritee ba ca suba sa ñu ni woo loolu ci baatin la ndax heure bi ñu ko jàpp sax di gannaaw tisbaar am na lu muy def ci moom Ousmane Sonko ci wàllum baatin li ma la mën a wax daal mooy mooy yolomal dina am waaye dëgëral bu gën a tar dina am. mooy lan sëñ waxoon naa la sànq mooy li ma la wax nii ku nekk la la war na nga ko def mission nga am fii ci àddina du alal moo la mën a sauver du ay relation du lum du lii du laa mhm. def li nga war a def rek bàyyee sa bopp yàlla soo ko defee rek jàmm rek ngay am dara dara dara dara du la laal. yal na yàlla defal ko jàmm yal na defal ko tawféex yàlla mi génnee woon Yunus si biir jën wa génnee Moussa xaral ko géej gi génnee Ibrahima yaa naari kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim mm-hmm. génnee Yuusufa sa teen ba gën a yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne bi waa Quraysh ci rajee bëgg koo rey mu jàng suratul yasin ba ca yub suruna ñu nelaw ba biddanti abu jëli toog naa leen seen waa ji dem na kii di tëddëb aliyu la yàlla moom moom moo fi nekk ba léegi te day gën a am pouvoir day gën a am doole képp ku taxawal ka taxaw bëgg yàq réew mi bëgg koo ndërmeel ci ay tappaleek nangam yàlla yàlla alag la képp koo xam ne lu jóg lu baax ak dimbale réew mi ku nekk jot sa aq moo la tax yàlla yàlla kattanal la sëñ bi arrestation yi dafa tàmbaliwaat pap Alé jàpp nañ ko di ko entendre di nga koy déglu ki nga xamante ni itam moom moo jiite ndaw Pastef yi euh, Pape Demba Touré moom tamit convoqué nañ ko est-ce que jàppoo ni da stratégie la pour affaiblir di wàññi seen doole ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci ginnaaw Sonko li mën a mën a xamal daal mooy lépp loo bëgg wax man nga koo wax ni mu waree te doo te doo doo doo génn loi damay wax foofu tamit muy sëriñ seeg ñëpp bul ne sëriñ nga rek tax doo lijjanti loi comme ñoom dañ laa tegal ay stratégie def seeni ay loi ni nii mun nangam am ngir bëgg PSG ay affaire yow fexeel ba nga xam loolu nga xam ni ngay regle ak ni ngay tegee ba doo am ba doo daanu ci li fiñ la fi ñu la fàkkal waaye nag mbir yi day toll foo xamante ni nooyal du tax nga am li nga bëgg de en tout cas daal li li nga xam ne moom mooy dëgg leer na nañ li nga xam ne ay caaxaan la leer na nañ ku nekk nag ñaari ñaari ñaar ñuy ñaar ñoo fi nekk faraluma kenn wala ànduma kenn moom mënuñ koo dégg ku nekk rek na dem fa nga xamante ni foofu la la war nga def ko su boobaa nag li si des nga def li la war yëpp li si des nga bàyyi ko si loxo yàlla yàlla moom mooy borom bët bu mag bi alam alam bi anna allaha yara dalay ba dalay bàyyi ngay teg sa eh, stratégie di jàpp di def nii nanga mu nanga muy toog di seetaan rek mu mel ni ko doon installé ba ba nga pare ba ne da ngay ciinir ciini mu bës mu bës contact bi courant coupé kooku mooy kooku mooy kooku mooy kooku mooy moo mooy yàlla yàlla moom moo njaboot njaboote ñun ñëpp moo ne ñaan leen ma ma may leen yow bul sàggan ba ba ba bul bul ñàkk ñaan yàlla en tout cas nañ dellu si mbiri maam yi dellu si lu ñu yàlla may muy alquran ak ñaan. Juan Branco sëñ ak nangam kooku li li ko fi war a ñëw. Juan Branco li ko fi tax a ñëw moom xam nañ ko nit ñi xam nañ ko ñu ngi koy doxal. li may ñaan yàlla daal mooy li ma wax ci ginnaaw képp koo xam ne yàq moo tax nga nekk fi wala ay liyeeg yëpp yal na yàlla alag la ku defar tax a jóg yal na yàlla yéwénal say mbir yaakaar naa bég ngeen ndax namoon ngeen ko gannaaw ba mu génne woon lu yàggul dara wax leen ci stratégie yi nga xamante ni nguur gi ñu ngi koy waajal Ousmane Sonko te yaakaar naa yegg si nañu fa te xam nañ ni Seydina Ousmane wax na ko Seydina Ousmane lu mu lu ñu jub balaa ñu caa yegg mu jox ñu la muy xew yéen a ngi seetaan coupe d'Afrique ba ak moom coupe du monde ba ak moom leneen ak leneen ñëwaat loolu lépp bu ko ñi ko yàgg topp xam nañ ni lii bettuñu xam na ni ñi ko yàgg topp lii du leen bett ndax laataa ñoo jub dara faw mu génn alerte citoyen la sénégalais waaye ku bëgg réew mi la gannaaw ñaan yàlla gannaaw faj aajo dafa nekk ñoo koo xamante ni ku koy topp rek di nga xam ni kii njariñ lu bare ngi ci moom dañ koy bàyyi mu daal di tëj émission bi tàggu mbokki internet yeeg soppe yi nga xamante te ñoo ko doon bàyyi xel fii ci Allô senegal waaw sant yàlla rek jëlli si yonent bi képp ku nekk si lu baax nga gën a góorgóorlu te xam ne mooy dëgg ak lu jamono rëb rëb ak lu mu yàqu-yàqu képp koo xam ne da nekk si ak njuum nga dellu ginnaaw te xam ne àddina bi dara jërul dara loo mën a am ak koo mën a xam ak koo mën a ànd ak foo mën a dem yàgg-yàgg waqi suur rek te àddina bi bul la buy tourné tilkal ayaamu nu daawiluha bayna naas tey day baax suba mu naqadi ku ko dul sóoraale defal lu la neex boo dee yàlla def lu ko neex yàlla moo la andi fii ci kaw suuf am na jamono nekkoo fi woon mu amal la kon fexeel ba amal gim la amal noonu nga def lu baax noonu la lay xëyee raaya la doo am gis ministère doo gis xarit doo gis yaay doo gis nangam da nga dem ba tollu jour boo xam ne yow ma yafirru lmaru min axi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa nii lu kulli mri'in minhum yow ma sin shenum yox ne da ngay dem ba toll foo xam ne sa bopp rek ngay tal su boobaa nag yaakaar naa da nga soxla loo xam ne dina la dindi dina la gindi dina la baaxal dina la rafetal dina tax nga mucc dina tax nga réussir waaye ku xalaat siraat di xalaat bis penc di xalaat li nga xamante ni moom mooy nakir ak munkir di li nga xamante ni moom mooy bàmmeel ak ya fa nekk kooku yaakaar na benn néeg rek boo fi tëjoo courant coupé léegi tey wala ñu yóbbu caabi ji da ngay mel ni kuy bëgg dof imaginel foo xam ne ñu tëj la suuf féete la côté bu nekk loolu na ko nit ñi di sóoraale bu baax a baax a baax du am am du pouvoir du leneen am na ñu fi gënoon a ñoo xam ne àll àdduna yëpp ñoo ko moomoon am na ñoo xam ne ilifoon nañu àdduna yëpp am na ñoo xamante ni gouvernement yi ñu amoon kenn mësu koo gis te defuñu woon lu mel moom lañ xamee fii na ko nit ñi mottali képp koo xamante ni li la war la nga def ko képp koo xamante ni xam nga ne lii dëppwut ak diine dëppwut ak lislaam dafay lor doomu aadama yi nga bàyyi ko te xam ne doo ci amee dara dara loo xamante ni di nga ko gërëm lu dul ne ay métit ak ay jafe-jafe nga koy amee waaye jure yàlla yokk seen fan te gën leen a dëgëral képp koo xam ne yaa ngi ci koso yi eh, njuumte dugal dafa yàlla génnee la ñi nga xamante ni eh, tamit mbir moo leen fa dugal ñoo ñu yàlla def génne leen si jàmm buñ génnoo buñ dellu si ñun lalu hôpital yàlla yàlla leen feebar yi yàlla yàlla wéral leen yu bon yeeg ngelaw yeeg shayatin yeeg yëpp yàlla musal si doomu aadama yàlla musal ñu si gàtt fan ak déggu ñaaw musiba yeeg balaa yi dog yëpp yàlla musal ñu si barke sayyidina wa sallallahu alayhi wa sallam wa ma ala rasul illa al balaax wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa